kooku ko am lébu yi neex man maa ngi am foofu 1975 boobu la am un an ci laa fa dem jënd ci lébu yi defar yooyu yëpp pour wane ne nit ki mën nga koo xam waaye lu nit wax sa kanam jabar ki doom loolu mooy la jërëk kii nag sama doom la ba ma ko waxee ne leen kenn du ko laal kenn du ko laal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 ak mbooleem koo xam ni libre nga borom sa sam xel kenn yeewu ko ñuy daje fii périodiquement di dénoncer la la la corruption nommément loolu du liggéeyu nag liggéeyu politicien la li doxul oto yi paan politiciens yi ñoo koy désigner parce que OFNAC créateur de dossier lañ dossier bi ba ñu ko créé fekk ko dee na wala alal jaraw na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 bu ko defee ñuy dénoncer diw nangam document bu ñu am génne mu capté ko loolu mën na nekk institution président Macky nag mën naa ko mën naa koo seedeel ne nit la koo xam ne euh, benn problème la am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 est-ce que kon ñun buñ ko ci dimbalewul est-ce que ci génn waaw su fekkee ne réew mi ñoo ko jox cinquante huit pour cent ñooñu ñëw ñun daal di ko def otage di ko def loo lu ne lu ñaaw loo dégg du moom ñooña la te buñ ko ci génn du ca génn du génn c'est important su fekkee ne dañoo respecter les institutions jug boobu loolu waa ji bindoon ne euh, xama euh, il faut sauver le le soldat nu mu tuddati soldat bi nu mu tuddati ah Ryan le soldat Ryan ah c'est ça mooy affaire Dreyfus quoi hmm. donc xam naa ko euh, il faut ñu dimbale Macky pour mu libéré wu ci le mauvais entourage boo boobaa ci la opposition bi di neexee ndax opposition bi baax mooy bii wax ak président bi te ko corrompre pouvoir bi baax mooy miy déglu opposition bi te leen jaay doole du tëj seen gémmiñ du yaakaar ne ñoom ay ennemi lañ mais ay compatriotes lañ il faut que ñu reconsidérer li jaxasoo ci suñu arène politique ndax ñaar ñi fi njëkk a jóge politique mooy la Senghor ak Lamine Gueye te mujj nañu mel nañu war a mel seen ñaari palais yi jàkkaarloo le palais du peuple c'est-à-dire le parlement et le le palais de l'exécutif muy jàll di dem